só? Alabi, né? Animas? Loolu ko ci biir gisuma ko dama doon def sama liggéey. Bon xaar nga génn. Gisoo nii damay génn. Mais fii ni nga mel ak li nga sol te ñoo ngi ci weeru koor je pense juste que ni boo génnee aussi da ngay yàq ñi nga xam dañoo wóor si biti. Li ma sol nan la yàqee ya, koor jàmbur. Booy bàyyi bis jox ma seen numéro Looy doyee sama numéro. Non mais business la jox ma numéro bi rek après ñu teg. Nice. Eh eh eh ba ma jox ko numéro What? Nee naa yow jigéen day seet. Ni ma gis nga ñaan ay cagalan bu leen sax jéem a xam dégg nga. xam mais yéen ah ok yéen daal da bëgg daal ñëw sama kër daal yàq ma daal man xoolal li may dund. gaaw ma apprécier jigéen mais yow moom apprécier naa la parce que gis naa ni que si li si kër gi da ngay liggéey nga dem toog sa coin duggoo ci kenn gis naa ni que aussi yaa ngi concentré wu sa liggéey donc benn affaire rek laa lay ñaan mooy que sama frère yi seen jabar yi seen ay kalaan nga bañ si dugg ñu concentré wu si sa liggéey. nga concentré aussi si ki nga xam ne moom la fi indi loolu daal nga xam ne boo ko defee moom dina def lu ma neex. ok t'inquiète pas loolu problème ndax man da na liggéey ci kër yu gëna a yi yu gëna aussi téwul dama cee génn nice man mom loolu intéressé wu man luma ñor moy ma liggéey ñu fay ma sama xaalis. d'accord so defee loolu mom dinañ jubóo. doxuma si loolu de ñoo dem xoolal seen gaal. waaw ah, booy booy doo ñu bàyyi ñu joué gaan wala bok mas yow lila la boy sa veeree nga way saf abras ni gënal fi li xool ci li nga nek nañ dem xol et. Eh, eh. yaa yaa mën naa xam lan mooy problème bi ak sama tonton mu ne da ko bundu xatal menacé ko ba dem ba téré ko sax mu tek di tànkam ci gëri lan mooy sa problème ak mom ngir yàllaati ngir yàllaati dama sol sama wéx tal woote sama jamm xéxuma ko lom bayima jàmm dépendrul ci ay yére yu weex wala yére yu bula jàmm comportement la booy dund ak nit yi man dama bëgg xam rek lan mooy sa problème sa sama diggante ak sama tonto ba nga ba nga koy tere kër gi ana mun soor ak Baye Ndiaye woo leen baax mais gisuma leen mais ñoom lan lañ fi def man maa seen kilifa suma ma fi toogee mel comme si ñu ngi fi déedéet nga bëgg la nettali dama bëgg mu mat ba kenn du jox ak sa morom woo ñu ñëw sori wu ñu ñu ngi seeni nekk bonsoir. Yaay waaye yaay doo puus nag ma toog waaw. sa balan eh ça va. yaay lépp parce que. waxaatal ñu dégg ñu say compagnon de guerre. loolu dafa jaroon ngay On xale yi. c'est juste que moom laa bëgg a xam lan On problème am parce que digganteem ak sama tonton xaw ma lan moo ci nekk parce que daf ko bundu xatal keroog ci buntu bi poñe ko sonal ko witt na ko léegi dem na ba en fait compte mu ne ko ñëwati ci kër gi rek ah loolu laa bëggoon xam fan la ko teg dara xewut maamoom sama kër ni bu mu fi tegati tànkam na génn sama kër ca biti yaay tamam mënta nag <laughs> sama nijaay mën nga xootale kër gi kër c'est impossible nga sama nijaay dafa am droit di ñëw ci kër gi di ñu seesi hmm. <laughs> waxal leneen waaye wax boobu moom jëru sax di mer yow problem xam la du sama tonton sa problème ya la ak sa trondoo bi sa ya, jatu bu ndaw bi te bëgg a jël teg ko ci kaw nit yi te xam nga ni comportement am rafetul chaque fois que kër gi am bruit rek jatu bu ndaw la loolu nga taxaw wax na dëgg de jatu la ah lu tax dama wax am nga man deug la fi nekkal de jatu bien vrai que sama jabar la su deug su far doon am rek kon mom la wara faral mais yaay jatu mo nekkul ci deug te tego ko ben yoon ci deug jeukeram yaa ngi nii toog kenn munu ko ci def lo mu def kenn munu ko ci wax lo mu wax nawle mi si kër gi jox ci kenn cër yaay te loolu waxoo ci defoo ci dara ah yaay yow tamit. yow moom ah xanaa boo ko ci réunion bi. mais yaay man kër gi dafa am kilifa te kilifa gi bu waxee ba pare man amatuma leen lu ma ci wax moom li wax yépp dëgg la lu may wax leneen. bàyyi kër gi seen nijaay dootu fi teg tànkam. ndax seytaane la féministe la rambaaj la taskatu kër la. léegi yaay loolu nga teg ko kon. noonu ma teg ko ci ñëwee di ger xale yu jigéen ñi di ko téeméer ak ñaar fukk juróom fukk mën ñu ko omletal muy jël ah, sama kër di yaay sama nijaay dafa melul de bu kuy jax sa njaboot ak sa yow nit ak njabootam sama nijaay bu soxla kër gi dafay ratax sa diggante ak yow say doom mais yow yaa am problème yaay ko bàyyi sama nijaay mu ñëw fi tuwaale si non da ko mënul ñëw fii sax parce ya sama nijaay moom ñaar ñoo bokk ndey ak baay sama nijaay ya li jabar ñun ya yaay waxoo dëgg sa nijaay gi kër gi dafay am foo ya ya ma njëkk ya saaga sa way dooma ma teg ya saaga ay ndey ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ni eh मलाई यहाँ गएर दिएको बगल बगल नै होला Mbaye li la mo ci nekk nak xana du yaa mom lal bi mom ndogu bi ma bëgg nga ndogu bu suur ko defé nga jàll teud du gëna bon ci nit moy lek ba paré rek hmm waaw boo ndogu ba paré nga jaaboon ci kër gi sax. wala nga lek rees nga ñëw teud gënul yéen dal jonge mo leen sonal quoi li mom jaaxal du ala ana ni lay jonge bu jonge won da koy lal ci suuf. Talal ko dressé ko def ko ñuko ko défé waye jël asparatam rek tek ñi lallalam su ndaw si rek tek nga nan ko jonge fi ya fi gis jonge ha? yow lan moo tax yow nga nek noy boy yow lan moo tax dara dara safu la yow xalé jigéen ñi teg seeni table tek seeni bagage defal seeni jëkkër ñu ndogu yow ñu talal la ni tegal la ñaari kaas tegal la tegal la croquette ak ñaari mburóob juróomi tandarma defal la ñaari ver nga ni ye yaay sa ndogu neexna e li na dak na jeex man sama kër xamuñu li man dama xam la bu yaatu sama njabot gep tok tok tok lek ngeen jël ni beru dal ñew tok ci biir ne kenn ku ne beru ah def ngeen ko barki dembu mu set Aziz Ndiaye beru ci mbedd ma yow nga beru ci mbedd ma man dal ñu jël ma sanni ma ci biir saal bi man kep kep ak ak soora mama mu ndaw sama caat sax ci ëtt bi la ndogoo ak ak jànq bi et looloo jeex tàkk amatu fi yow nag yow laay waxal kenn ëpp la fit xamoon naa ne yaa ko dirigé bu dee sa ndey nii la daan sëye bi e bii sëy amul sama kër na jeex lii na jeex laa la wax góor ñëpp a ngi ci hôpital yi xaaj baa ngi ca morgue ba kenn amatul doom ji góor ndax yéen bu ngeen jàmbul yéen a ngi xooj. yaay loolu wax damay wax li ma neex lan la la bere. nako togg ba mu yaatu ñepp bokku lek lu luy nday jël sa jëkkër ber ci biir nek su bëggoon jamm wala mu tëgg ci jamm dina ko defé ni et li day jeex la la wax dégg ma wala déggoo ma bu dé sa nday nak ñi la doon sey et na leer man bi sey amul sama kër si li ngeen doon fet ché chef pas possible bi man sama yaay est-ce que ça va Baye Ndiaye maa ngi jéggalu ah, problème yëpp xam naa ne man la ndax suma la lu won fi ndogu sa yaay du la xass baal ma ak bu baax. bébé jëru nga may jégalu gisul li nga def ni man la neex sama yaay kay mo bëgg rek di wax comme mom loolu la bëgg boo ayatee xoolal ndogu li la buntu kër ga ba ci salon bi. loolu mo gën sax nañ def loolu c'est ça. d'accord defra man man ndogu dama xef